waaw jërëjëf Nourou ñu ngi dégg ni meek bu baax di rafetlu jotaay bi comme ni nga koy ni nga koy faral defee ay ay bés yi nekk di sant bu baax xam-xam euh, ngi fi indi dëkk bu ko ñun ak euh, ñu fi faral ak yëpp ñu mel na euh, suñ Babacar Lo ak ñoom seen kii nu yàlla xam naa mi ngi suuf ne ñëpp ñu nuyu bu baax vraiment dëgg-dëgg li nga li nga indi leeral tey jii si si mbirum xel koom man noonu la ko tuddee si <laughs> ab a bu ma fent la xam naa booba tey ci waxtaan ne war na si liggéey si si làkk làkk réew mi ni koy def ban ko gën a mën a yaatal ba ñu euh, ne ñu nekk ñu xam ne jànguñu tubaab jànguñu jànguñu jànguñu arab ak leen si gis seen bopp ndax fi lañ jëm ëllëg itamit ëllëg te yaakaar naa da da dañ na si tabal li booba tey ñu ngi koy ñu koy yow ay wàcc wala si jublu tabal def ne tamit du firi feccee du ko leeral si wolof nii pare itamit du ko di ko taf si say këru bopp yi nekk si YouTube ak feneen si euh, xale xale yi ay si am na solo lool jërëjëf ñu ngi nemmeeku ko xam naa nag kon am na lu bëggoon ñet am na bu ñett laaj xam bëggoon nag la xam ma tàmbali si benn am na sax fu nga waxee ne maanaam euh, ni ñuy dencee maanaam xel koom mu ne xel koom nag mooy xel ak koom koom xam ne mooy économie xel mooy xel rek. moom yaakaar naa ne moom moom la bëgg yett moom la ñu bëgg yett yaakaar ne mën koy tuddee lu mel ne bitcoin waaw léegi nag euh, bu ñu nee euh, blockchain bi yaakaar na nekk euh, woyndere boobu ñëpp xam na ko moom woyndere na ma njëkk ñu leen dencee seen seen seen seen am-am seen ay kayit teg seen ay seen mbiru biir yu koy da gis ay waxate yu mag ba neen mu waaroo tey ji da gis ni tey ji su mag code wàcc liggéey da gis ni ñit du ñu sax alal jeeg kër suuf si waaye waa ndeer la ñuy xëccoo si la xam-xam bi nekk nag dafa fokkate dañuy denc xam-xam yoo xam ne dafa jublu si mbirum jat si mbirum suuf si mbirum lenn gën a gën si mbirum euh, jaww ji ak ni seete si suuf ak si ndox ak yeneen ay yoo xam ne day tiñin léegi sama laaj bu njëkk bi muy jublu si maanaam caabi yi mën denc maanaam suñ suñu xelkom suñu maanaam suñu bitcoin euh, suñu wax na sànq lu am solo ma am na caabi xam ne na denc yoo xam ne mën a denc yu mën a yu bees la yoo xam ne laata koy teg teg ci benn béréb rek mo am benn caabi yoo xam ne mooy sax caabi ci bopp ak caabi xam ne mu ngay joxe si si njëmeer gi mooy clé publique clé privé am na beneen caabi yoo xam ne ak dencin boo xam ne mën koo tas ay yeneen caabi yoo xam ne dañuy dañuy lëkkaloo di di jokkoo seen biir léegi maanaam ku leen sàcc wala xagle du si du si mën a du si mën a egg ndax dafa ba suñu ñëw leeral ko si sama laaj bi njëkk dina am solo jërëjëf. merci merci grand baay gis nga liggéey bi ngay wax nii si wolof bi maanaam gën leer ak yooyu loolu je m'étais dit il fallait déjà mu nekk Sénégal sur place et ce sera pour bientôt incha allah parce que instant boobu noonu ngay a toog ak nit ko réellement parce que à distance c'est un peu difficile mais maa ngi Sénégal bientôt incha allah et loolu dina mën a nekk déjà si projet yi am na def ay vidéo xam nga éducationnel comme li gars yi di def ah, yoo xam ni c'est illustré par des petits dessins animés là pour expliquer un peu mais pour sa question bi en fait loolu sont des techniques utilisées pour mën a sécuriser say bitcoin mais aussi pour de telle sorte que yow soo koy yónnee en fait du nekk juste benn caabi moo koy ibbi day mel ni ñëw ñu ne la lii benn coffre-fort la coffre-fort bi benn caabi moo koy ibbi. xam nga ni coffre-fort boobu noonu il suffit juste nga trouver caabi nit ki nga ibbi ko après fini mais imagine nag ñu ne la beneen coffre-fort boo xam ni ñetti caabi ñoo koy indi ibbi ñetti caabi yooyu noonu bu nekk mu ngi ci benn continent différent xam nga kooku noonu déjà balaa nga see attaqué wu di nga réfléchir à deux fois même soo si attaqué wu le temps ngay dem récupérer ñetti caabi yooyu noonu ça va être extrêmement long te nit ki su gisee ni benn caabi sàcc nañ ko peut-être que dina changer waat mécanisme boobu yëpp. eh ben c'est extrême c'est pareil en fait quand il s'agit de bitcoin clé privée bi moom mooy la base moom la ñuy répété depuis toujours léegi <coughs> su fekkee somme yi c'est pas important benn clé privée doy na mais plus muy yokk il faut ngay wut ay mécanismes wala ngay utiliser ay mécanismes yoo xam ni comme ni nga ko waxee da ngay lëkkaloo plusieurs clés privées pour mën a débloquer soit bitcoin wala pour mën leen yónnee tu donc loolu il y a plusieurs solutions sur le marché yoo xam ne c'est open source mais aussi des choses yoo nga xam ne entreprise ñoom ñoo koy développé seen bopp gis naa ni bon les solutions les plus utilisées commerciales mooy Ledger mais puisque c'est commerciale on peut pas considérer que c'est vraiment le top niveau au niveau sécurité am na yeneen solution yoo xam ne c'est un peu plus caché mais toujours open source yoo xam ne moom la nit di utiliser mais en tout cas ça dépend réellement vraiment de yow lan mooy say euh, lan mooy say possession quoi en après du ma mën a ñëw réellement si détails yi parce que détails yooyu su ma ko joxee fii nii xaw ma kam moo may déglu donc nit mën na ko utiliser aussi pour voilà quoi donc loolu c'est autre chose. ñoo ko bokk Male. bien merci beaucoup. Euh, open source boo xam ne benn benn benn wax ko si mën a waa am na benn bu tudd cold card xam nga card boobu tamit bokk na si gën a siiw open source yi. cold card waaw cold card donc voilà quoi. jërëjëf kon Marley ma ngi jégalu si si euh, par rapport ak le ci base parce que des fois aussi pour ñu fàttali un peu euh, fàttali ko suñu bopp déjà donc ñëwaat xamaat en fait. Euh, noonu la affaire yi di fonctionner nga ñëw dugaat ci vraiment les bases c'est très intéressant euh, bon man aussi amoon naa benn question donc euh, parce que <coughs> temps mi ngi may travailler dans l'esprit ma ne woon genre est-ce que comme euh, le fait que au début amoon na ay pour créer benn site internet donc ñu bëri dañoon obligé di coder pour am site internet. Bon, actuellement gis nañu aussi pour am application mobile. Euh, ñu bëri léegi genre am na am nay développeur ba léegi ñuy coder mais y a aussi des des autres euh, systèmes yoo xam ne qu'on appelle je sais pas le no code je sais ñu bëri xam nañ ko ou pas euh, dina la permettre yow nga am application mobile sans pour autant nga nga def sa codé quoi nga codé nga nekk développeur quoi tu vois donc ma ne woon aussi est-ce qu'il y aussi une plateforme wala solution boo xam ne certains développeurs l'ont mis en place pour que une personne lambda su bëggee créer monnaie boppam crypto monnaie boppam créer ko boppam quoi sans pour autant nekk un développeur et tout ça donc loolu moo nekkoon sama première question aujourd'hui c'est moi les questions bu très importante parce que là tu parles des CMS par exemple là avant pour développer benn site internet il fallait nga mën ay HTML CSS JavaScript wala boog Java et là da nga jékki-jékki nga gis ay WordPress wala yeneen yoo xam ne il suffit juste nga télécharge benn template modifier ko sans écrire une seule ligne de code loolu euh, temps yi nii laa découvrir ay solutions yu mel noonu parce que on m'en a parlé te benn bi <coughs> pardon mu ngi tudd Tatoum point io parce que dafa am benn justement un sénégalais qui en train de construire dessus parce que mon projet mooy defar benn exchange mais in Sénégal donc moom il a choisi ce chemin là Donc Tatum.io, Tatum je suis pas en train de faire leur pub, mais pour répondre à ta question, quoi, c'est une solution comme ça. Ethereum, mon moon je l'ai utilisé en entreprise de deux manières. Un via bi deux via interface graphique. Nous avons une interface graphique à l'époque. Il suffisait de télécharger quoi. Mon est client au final. Mais tu avais quelques Ethers, tu bires, mënoon nga créer benn crypto-monnaie très rapidement parce que Ether yi <coughs> moom lañ doon transformé si cryptomonnaie bu bees bi nga ñëwoon mënoon nga tànn tur beeg yooyu yëpp donc loolu lépp gisoon naa ko tamit mais ça existe après bon solution yooyu noonu euh, en fait tu connais pas yow mii sax créé cryptomonnaie bi tu connais même pas en fait au final comment ça fonctionne derrière donc suba soo demee di ko présenter ay nit wala di ko jaay ay nit ñu laaj la tu ne sauras pas quoi leur répondre donc loolu mooy danger wu affaire bi euh, jox naa la si deux solutions mais voilà soo demee ba utiliser il faut vraiment aussi que mu fekk base yi xam nga xam ko quoi de te sorte que yow tu puisses défendre ton projet si c'est le cas quoi je sais pas si ça répond à ta question. oui parfaitement clairement ok merci beaucoup donc léegi moom dinaa ko je vais de ñu am nañ sur internet n'est-ce pas. waaw Tatoum Tatoum c'est T A point I O. parfait su ma juum waaw. d'accord donc dinaa ko dem essayer xool. merci beaucoup nangoon na kon sama première question bàyyi yeneen gars yi expliqué. amul benn problème at euh, grand Moses mu lay nuyu. waaw Ndour maa ngi lay nuyu yaag bàyyi ma dikkee euh, Malle maa ngi leen nuyu ñeen ñëpp si stage bi. di la fay. Euh, sànq da amul la wax lu important mooy ledger xam na man jëndoon naa ko ay janvier yooyu jamono jooyu mu tombé nu xàkkee ko nag. <coughs> après gedd ledger bi quoi denc ko effectivement ba léegi dugaluma si samay crypto effectivement encore keroog gis naa ay recherche ma gis koo xam ni dafa jël clé USB mu def Veracrypt quoi xam na mm. Veracrypt mooy encryption mm-hmm. mu def genre encryption key mm-hmm. si biir benn genre clé USB la effacé formaté wu def mm. encryption kii après mu dem si benn site bu ñuy wax Coinomi Mm-hmm. Mm-hmm. léegi mu téléchargé benn genre kii xaw ma open source la daf ko si biir clé bi bu ko defee day doon comme genre porte-monnaie physique. Mm-hmm. léegi loolu loo si xalaat daal côté boobu nag bu fekkee ñun ñi mun nu jën ay ledger wala genre yooyu est-ce que loolu c'est sécuritaire. Mmh. Si Ledger, effectivement, on avait vu il y a quelques mois que de femmes bien à cœur, vous base de données. récupérer information lu ñëpp ñi jëndoon les jeux maanaam parce que sooy jënd na jeux da joxe ay documents te loolu déjà c'est ça doit mettre la puce à l'oreille donc attaquant boobu noonu jël information yooyu yëpp xam na ñëpp ñi jënd les jeux te d'habitude les jeux soo koy jënd c'est parce que yow tu as ou bien tu prévois d'avoir une certaine quantité en crypto-monnaie donc nit ku dem ba xam après yow sa adresse à quoi tu ressembles ndax sa pièce d'identité yooyu tu vois c'est c'est c'est une grosse faille quoi donc man solution yooyu moom dama koy wax parce que il faut nit yi xam ko mais je ne les conseille pas quoi tu après solution bi nga wax ni en fait la personne se di man je mettre en place benn système boo xam ne y aura deux trois barrières balaa ngay jot sama cryptomonnaie yi maanaam clé boobu noonu donc dafay crypté ce sera crypté pour nga crypté pour nga décrypter ko il faut nga yor beneen clé tu vois donc ce sera une double clé privée Blanga est réellement si vrai qu'il est privé wu portefeuille bi maintenant tu as parlé de Coinomi Coinomi am nañ benn application mobile Coinomi est un comme à la fois benn exchange mais aussi dañoo intégrer ay solution pour mën a échanger ay crypto-monnaie contre d' autres <coughs> man daan naa leen utiliser après musuma dégg lu négatif si Coinomi donc mënuma la si wax dara léegi nag. Euh, si c'est open source je sais pas non plus aw ma si information mais si c'est open source je te conseille ñoom nga dem xoolal sa bopp réellement ñoom comment est-ce qu'ils communiquent avec les API parce que ils ont des API soo ko defee nga xool ñoom yan mécanisme la ñuy générer seeni clé privée wu crypto-monnaie yi non portefeuille yi pardon est-ce que ñoom dañoo am ay HD wallet wala est-ce que ay wallet classique la simple tu parce que peu importe yow nit ki yor benn clé cryptée boo xam ni si biir sûrement dina am ay fichier crypté yoo xam ni si lay def ay clé privée peu importe loolu am na su fekkee tu as fait ça et que yow si boppam moom moo détenir clé privée mère bi ça ne sert à rien quoi suba suñu leen hacké yow peut-être que tout cela ça n'aura servi à rien donc au final mënuma la tontu réellement ces questions je te demanderai juste que nga dem yow vérifier sa bopp réellement waa Coinomi seen code source quoi loolu laa la mën a jox comme conseil grand. ok amul problème dama xool mais yow bu dee open source pour kii euh, pour def ko si biir clé bi yow pan la yaakaar ni moo gën a décentralisé wu boo xam ni du man ko mën wala genre yooyu noonu. bu ñu mënul attaqué moom amul mais tu sais il faut faire la différence open source da nga am open source et open source. tu as benn open source boo xam ni ñoom dinañ génnee on va dire quatre vingt pour cent code bi nëbb cinq pour cent bi et am nga lu ñuy woowee FOS full open source software maanaam nit ki dafa ñëw génnee lépp genre là su defee licence boobu maanaam génnee na lépp nëbbul dara et puisque génnee na lépp nëbbul dara il il autorise aussi nit yi reproduire moom projet am il autorise aussi nit yi commercialiser projet am tu vois donc fais très attention si open source boobu noonu après man en terme de sécuriser un yooyu je pense que c'est plusieurs du benn clé moo la siy génnee nga war a def mix benn clé plus benn logiciel ak yooyu mais base bi mooy nga am client Bitcoin Core boobu mooy base bi après lépp loo bëgg a def nga def ko ci kaw client Bitcoin Core bi man loolaa lay conseiller quoi ok merci beaucoup ñoo ko bokk xaw ma nag gars yi am na yeneen question ñi suuf n'hésitez pas façon on est là pour essayer de répondre aux questions ñun ñi ñëpp voilà quoi donc n'hésitez pas à monter à poser vos questions quoi waaw jërëjëf euh, euh, bu fekkee ne mën naa addu tamit si si ñu ngi lay déglu grand baay ma ñëw si beneen ñaari laaj laaj ñaari laaj bi gi bi ngay firi fekkee di leeral mbiru Euh, mbirum euh, xelkom bi ngi wax am solo lu ñu noos waaye maanaam bu bu ngay sëmbat euh, si biir calal wandere gi maanaam blockchain bi bu ngay sëmbat le bataaxal bi ñu yónnee ñu koy sëmbate boo xam ne nu ko waxee maanaam dañuy def boo xam ne ay ay zéro yi xam moo wala moo si kanam ak loolu ba su mën a leeral tuuti pour ñu gën a leeral gën a leeral suñu xel ak ñett ñettal laaj bi mooy bu mën a dellu si tamit lu xaw xaw na démb si fan yu wees wala démb defe na maanaam beesal ba ñu beesalaat maanaam Wandera bi ak Qualcomm maanaam blockchain bi ak ak nu muy doxee ñu tabroo boo si mën dellu dellu si tamit jërëjëf dina ok alors non lu pour expliquer ko il faut ñu jël ñett terme Déjà un dafa am difficulté deux cible trois nonce difficulté parce que si code Bitcoin il est écrit que chaque dix minutes en moyenne le réseau bi war a générer ay blocs chaque dix minutes en moyenne donc nit ki su defee une transaction à temps zéro en moyen dafa war a xaar dix minutes balaa muy am une confirmation maanaam mu dugg ci benn bloc lu waral loolu c'est parce que il faut déjà que transaction yeneen nëy valider ko comme ça ñoom il confirme que ni kii nii triché wul il faut aussi mu éparpiller wu si yeneen nëy mais aussi il faut donc ce travail là c'est qui sera fait par les mineurs mooy calculu nonce bi donc pendant ce temps transaction yëpp dañuy dugg si benn endroit bu ñuy woowee même pool di xaar et loolu tamit mooy permettre keneen ku ñëw ci gannaaw bëgg a yónnee ay bitcoin day dem xool ci même pool bi il y a combien mu xool environ ñii ñaata lañu fay comme frais nit ki moom dina mën a tànnal boppam ñaata lay fay comme frais su fekkee dafa yàkkamti dina gis ñaata la war a fay pour moom transaction am dugg ci bloc bii nii di waaj a ñëw comme ça transaction am def quelques secondes voire quelques minutes su fekkee yàkkamtiwul mën na xaar un jour deux jours trois jours mën na def le minimum de frais loolu nit su ko defee yow en fait ta transaction elle est quasi gratuite donc loolu mooy benn mooy difficulté bi et difficulté boobu noonu day ajusté wu tout le temps maanaam chaque deux mille cent quarante je pense bloc code bi day vérifier day xool transaction transaction yi mus a am yëpp ci période boobu noonu mu xool bloc yi est-ce que bloc yi biñ leen di valider c'était plus de dix minutes wala moins de dix minutes su fekkee c'était plus de dix minutes ça veut dire que instant bii nii la difficulté elle est donc logiciel bi day ajusté wu wàññi difficulté bi de telle sorte que mineurs yi ils vont valider les blocs en moins de dix minutes maintenant su fekkee dafa xool historiquement que bloc yi c'est validé en moins de dix minutes danaan en fait ñii nii dafa yomb si ñoom donc day yokk difficulté bi loolu mooy premier terme bi nga xam moo lay permettre nga comprendre nonce léegi su ajuster difficulté bi lan lay changer mooy cible bi cible bi mooy référence bi maanaam benn chiffre lay nekk ak H am H mooy empreinte cryptographique parce que pour nga nga xam la mooy H soo jëlee benn benn tur wala benn mot comme par exemple yow baay b double a y soo ko haché si benn algorithme de hachage da lay génneel benn série de chiffres et de lettres boo xam ni c'est censé être unique sauf exception mais baay bii nii soo si génnee benn a wala par exemple nga yokk si benn e empreinte cryptographique bi day changé da ngay amal beneen série de chiffres et de lettres bail bii nii soo changé woon benn A bi nga def ko A avec accent day changé encore donc un e H ça te permet juste de vérifier que information bii nii wala élément bi wala fichier bi wala peu importe changé wul que c'est unique donc target bi mooy cible bi logiciel bi wala boog on va dire consensus bi protocole bi day ñëw ne léegi lii mooy cible bi pour mineurs yi maanaam H bii nii. mi nga xam ni ça commence par huit zéro neuf zéro dix zero moom mooy empreinte cryptographique u chiffre bi maintenant mineurs yi damaa bëgg ngeen trouver ma benn hash boo xam ni c'est inférieur à sama cible bii nii c'est comme benn calcule quoi c'est comme si ñu ne la voilà defar ma benn calcul boo xam ni ñaari chiffres yi soo leen additionné ça va inférieur à ce chiffre là c'est à peu près ça donc à partir de information yooyu noonu mineurs yi gis nañ ni difficulté bi yéeg na wala wàcc na et que puisque difficulté bi yéeg na wala wàcc na cible bi changé na donc ñoom dañuy xool cible bi lan la ok cible bi tey c'est benn H boo xam ni ça commence par neuf zéro ba il faut que ñoom ñu trouver benn H boo xam ni c'est inférieur en tout cas dina am moins de neuf zéro donc par exemple huit zéro donc ñoom pour loolu qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire plein de simulations maanaam dañuy jël ay chiffres yu bari wala ay mots wala lu bari à chaque fois ñu leen di haché suñ ko haché affaire bi su génnee benn élément ñu vérifier est-ce que c'est inférieur à cible bi non ñu haché beneen encore encore encore et loolu c'est des trilliards de simulations et c'est pourquoi quand on parle de bitcoin on te parle de hash rate le taux de hash tu vois et même quand tu vois les machines des mineurs là on appelle les ASICs ils vont ils vont te parler en termes de terahash par seconde maanaam machine bii nii il va te hacher combien de fois par seconde en termes de milliards et de milliards donc loolu mooy noos bi maanaam mineur bi su demee bu trouver benn hache boo xam ni c'est inférieur à cible bi trouver na noos bi maanaam chiffre bi nekk si gannaaw hache boobu noonu et qu'est-ce qu'il fait direct da koy valider bloc bi créer benn transaction bu ñuy woowee Coinbase maanaam mooy rémunération bi six virgule vingt cinq bitcoin tey si saa si mu propagé ko yeneen mineurs yi ne bàyyi leen liggéey bi man trouvé naa bloc bu valide bi ñeneen ñi ils ont juste ñu nekk di haché waat pendant dix minutes wala plus dañuy jël juste nonce bi mooy donc mot bi wala chiffre yi ñu ache ko après ñu vérifier est-ce que c'est inférieur à la cible si c'est inférieur bah c'est bon il valide et il passe à beneen bloc et ainsi de suite ainsi de suite donc benn processus la boo xam ne ça se répète le temps et ce sera fin de Bitcoin et qu'est-ce que ça va faire travail boobu noonu moom mooy permettre nit ku nekk du ñëw jug ne moom mineur la modifier code dugal transaction bu ko neex si benn bloc ba pare éparpiller ko étant donné que yow il te faut au minimum un investissement de deux mille trois mille euros pour mën a tabax sa benn rig de minage wala jënd sa benn ASICS pour mën a miner nit kooku noonu il aura intérêt à jouer le jeu ci wàllu bëgg donc kooku puisqu'il aura intérêt à jouer le jeu on peut se dire que transaction yi nga xam ni nekk ci benn bloc ils sont entre de bon mains donc noos bi c'est à peu près ça quoi xaw ma nag réponse bi ma jox nii ça te satisfait quoi. bon leer na kay mooy nekk validation quoi. waaw donc da nga am difficulté bi mooy méttiwaayu minage bi deuxième bi nga am cible bi. bon <laughs> xaw ma cible nuñ koy waxee en bi mooy euh, mooy justement nonce bi tu vois te nonce bi voilà chiffre la mooy la xam naa cible mooy la ngay diir rek moom loolu la ngay diir boo dee sànni diir da nga am diir. ok et pour rester sur le minage instant bi nii c'est benn investissement très lucratif euh, justement damay waaj a préparer benn présentation sax sur ce sujet là. parce que dama doon liggéey kenn koo xam ni il a fait l'étude du <coughs> pardon euh, du réseau d'électricité au Sénégal réseau de distribution bi Sénélec et tout ça les prix et tout après instant bii nii kenn ku dugaloon xaalisam si minage il peut se retrouver avec peut-être un retour sur investissement complet au bout de six sept mois maanaam ku jundoon benn machine nii à je pas huit mille dollars et cetera nga pare nga fay une certaine somme en électricité yow au bout de sept huit mois remboursé nga sa machine bi après lépp lu si ay bénéfice la en sachant que pendant huit mois yooyu noonu yaa ngi fay sa électricité tu donc euh, minage les gens n'en parlent pas parce que c'est extrêmement lucratif mais minage benn franchement man je conseil à ñëpp ñuy déglu nii ngeen dem renseigner ñëw si lan mooy minage ngeen xool est-ce que mën ngeen ko def en sachant que ku nekk mën na ko def ku nekk mën nga am benn machine sa biir kër wala nga construire euh, benn ferme de ménage quoi avec plusieurs machines grosso modo quoi. léegi itam est nga am benn maanaam euh, sëmbatukaay maanaam mi ma machine benn ASICS boo xam ne da ko jënd pare jox liggéey wala mën a nekk itam wala. waaw c'est ça da ngay dugg si benn pool maanaam yéen ñëpp yéenay boole seeni su machine yi et après dañuy calculer ku nekk yow la mooy sa apport. peut-être que kii nii c'est un pour cent peut-être que c'est pour cent parce qu'il a plus de machines mais bés bu kenn si yéen trouver benn bloc rek six virgule vingt cinq pour cent yooyu dañ koy pàccoo en en en fonction de ku nekk lan la apporter quoi tu donc loolu mooy pour de minage yi après les mineurs industriels mooy ñi nga xam ne ils ont de grosses fermes ñooñu ils minent pour eux-mêmes ba pare ñoom ñooy créer pool yi si boppam tu vois euh, minage tamit beneen débat la boo xam ni mën nañ si dugg un peu plus en détail quoi mais defoon naa si benn vidéo pour expliquer ko en wolof. jërëjëf jërëjëf xam naa mooy ñetteel question mooy maanaam si maanaam euh, ba yeesal bi ñuy yeesal maanaam. Euh, ah caalaa da way deer gi maanaam blockchain bi ak ñoom seen. ok ndax mën na ce que euh, taproot bi am na loo xam ne xalaat nañu maanaam lu mel ne tey ba bu amee boo xam ne génn na li ñuy wax maanaam. Euh, benn machine quantique boo xam ne dina mën di ay ay ay ay ay ay password si yu xalaat nañ si loolu jërëjëf. ah loolu moom leeruma justement bëggoon naa invité professeur Ousmane benn bis mu ñëw fii nii mu expliqué ñu lépp lu jëm si cryptographie xam nga quand on parle de elliptic de quand on parle mais naa ko contacté incha allah comme ça moom mu kii ñu ko mais Taproot euh, donc mise à jour bi am si bitcoin nii nii benn. changement majeur la indi <coughs> pardon et c'est au niveau justement des signatures maanaam tey nii man ma yónnee à Baye benn transaction damay signer ak sama clé privée donc loolu c'est une signature moom la ñuy woowee aussi un témoin léegi am na ay entreprises comme ni ma ko waxee woon la dernière fois comme benn bu tuddu tudd Chainalysis wala beneen bu tuddu TM Labs la beneen bu tudd Elliptic ñoom li ñuy def mooy dañuy analyser blockchain bu bitcoin bi saa su nekk comme ça ñuy mën a def ay graphique comme ça ñuy mën a tracer transaction yi comme ça ñuy mën a tracer bitcoin donc bitcoin le fait que mu décentralisé le fekk mu open maanaam nit ku nekk saa yu defee transaction da ngay jël ID bi nga dem si benn site internet nga xool yow sa transaction fu mu toll dafa am côté positif comme côté négatif côté positif bi mooy yow tu es ton propre contrôleur instant yi kenn si ñun du def virement bancaire ba pare mën a xam virement bi fan la toll <coughs> pardon banque bi rek ka xam mais soo defee sa benn transaction bitcoin yow mën nga xam fan la toll mais problème bi mooy képp ku dem ba xam ban nit moo nekk ci adress bii nii ci gannaaw adresse bii nii mën na traquer nit kooku lépp lu muy def moo tax exchange yi c'est extrêmement dangereux tu vois le fait nga leen di jox seeni papier ak yooyu soo leen defee transaction dinañ xam nit kii nii fan lay yónnee xaalisam yooyu ay ñoom ci analysis ak yooyu dañuy jël information yooyu noonu nuuru def na transaction dañuy ñëw tracé nuuru fan la jëlee bitcoin am yi fan la koy dépensé jusqu'à jusqu'à la fin quoi lu tax parce que chaque fois nuuru su defee transaction dafay signer avec sa clé privée am nga ñeneen ñi nga xam ni comme solution yi ma waxoon la dernière fois PSBT ba nga xam ni imaginons nuuru moom il ay trois clés privées yoo xam ne da leen di lëkkaloo pour ñu def benn transaction mais ñooñu ils sont capables aussi su fekkee xam nañ kan moo nekk ci gannaaw clé privée yi nii yëpp ils sont capables aussi de faire le lien donc di la traquer aussi am na ñi nga xam ni tamit dañuy bloquer ay bitcoin pour mën a créer ay canaux lightning te pour nga bloquer bitcoin yooyu noonu tamit dangay def lu ñuy wax un multisig wallet maanaam benn portefeuille avec plusieurs signatures entreprises yi ni ma leen di wax ils sont capables aussi de différencier tout cela maintenant Satoshi Nakamoto à l'époque bu muy créer Bitcoin dafa bëggoon créer benn dafa bëggoon utiliser pardon benn système de cryptographie bu tuddoon SNOR S O C H euh, S N O C H R waaw SNOR on a on les appelle les signatures SNOR mais à l'époque c'était breveté léegi temps yee passé le brevet le brevet bi tëb développeur Bitcoin ne maintenant dañ koy utiliser si Bitcoin et qu'est-ce que ça permet entreprise yi nii ma leen wax bés bu ñu dajee benn transaction du ñu mënati xam est-ce que benn nit moo yónnee wala est-ce que plusieurs personnes ñoo yónneendoo wala est-ce que plusieurs personnes ñoo lëkkaloondoo maanaam lépp day mel ni benn rek type de transaction moo amati donc loolu ça permet de protéger les gens donc signature yu bëri yi du amati en plus day réduire taille yu signature yi et donc ça va ça va permettre plus d'espace ci bloc donc il plus de transactions ci biir yi donc on aura plus de transactions par seconde pour Bitcoin donc dina yokk vitesse réseau bi dina yokk sécurité wu réseau bi quoi donc grosso pour détailler simplement li mooy un peu Taproot à jour bu beesu Bitcoin bi nga xam ni c'est c'est c'est rentré en jeu depuis depuis démb quoi. waaw Sonar noo koy bindee S O. S xaaral moo wax la exactement parce que genre tour allemand yooyu noonu dafa xaw a compliqué. Je te le redis tout suite, c'est SCH. Donc, tu as schno o r SCHNO2R, Snor signature. jërëjëf jërëjëf. ko bokk.